ci li nga xamante ni mooy situation dëgg dëgg yi suñu xale yi mooy suñu sëriñ mooy suñu suñu suñu suñu suñu yi góor yi ñu ngi dañuy def ay kilomètres kilomètres pour dem jàngi ce qui est anormal ni li mooy case santé case santé bi aussi soxla nañ ko parce que suñu suñu femme bi soxla nañ ku ku feebar da ngay def obligé def ay kilomètres ay kilomètres pour dem faju ji ce qui est anormal aussi moo tax ñu woo monsieur le président la république ñu woo monsieur le maire boo xamante ni day voyager rek day voyager rek loolu loolu loolu teewuñu fii loo tax loo tax tey tey tey tey tey tey bi ñu waaw bi ñu bëgg mooy bi ñu bëgg mooy ñu satisfaire ñu suñu satisfaction ñu am suñu forage bopp comme ça ñu am suñu. asalaamaaleykum. mbiiremi ko Demba Diop mi ande o malal et trois points karami ko forage karami ko collège karami ko poste de santé ɗum min ngala ɗum min keeɓi ndiyam ko 93 ko tiwo min keeɓi min keeɓani forage min keeɓi ndiyam koye abdi diouf min keeɓi courant koye ablaye wadde makkisal zéro victor pouvoir zéro dans la commune de nabayji zéro hamin noon ko fuuta rokkimo ko ko gañiɗo e fuuta ko o meeɗa gañade ɗum te o heddi fuuta tourna économie c'est où on a servi toute l'économie, on va doit émigrer quelque chose, soit pour dispensaire, soit pour forage, soit pour pompe, pour le Nil, rien est dans la Kouado. Et encore, un maire commune de Nabaïdi. Oui, oui, yettinta président de la min ganda o heeɓi min ganda o heɓani kala wari ɗo ko même parlol mi nani mi faami mami yettino yon jusqu'à présent min nganndinamo noon so tawi min keɓani forage 2021 élection député ko perdowo e dans la commune yo fam aydara ko wonnimo ɗo so wona perde wonimo ɗo henna so waɗananimi komin jiɗi ko assalamu aleykum